salaamaaleykum mbokk internet dakar net point comme comme ni ñu koy defee saa su nekk rek euh, te dañoo ñëw ba Pikine ah di dalal champion koo xam ne mun naa ne xale la mais mi ngi ci yoonam nekk doomu mbër Wolof Njaay daan naa dégg mu naan ah, doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dees na la ñam tey nag yaakaar naan mi ngi nii luñ defee du jox ko kàddu yi mu ngi doog bokk internet di koy seetaan après ko moom ci waxtaan booy ma ñu leen di di la ziar. maa ngi ginnaaw ma sant yàlla julli si bi di sant samay ñaari waajur. maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu tamit seen teewaay tey ginnaaw loolu nag maa ngi sant ñëpp di sant waa Pikine ñëpp képp kuy doomu Pikine booy mënoon mu ngi lay nuyu di la ñaan jàmm ci réew di ñaanal ñëpp jàmm. alors noonu kooku mooy Boy Maroon duñ def ak dugg waxtaan ak moom euh, nga nekk doomi mbër est-ce que nekkul ne tamit euh, mun ñoo jàpp ne li sa papa nekk mbër moo tax nga dugg ci làmb wala li sa bëgg-bëgg la. non dama ko doon Abdou bëri dafa dégg ci cosaan nekk loo xamante ne cosaanu maam la sama maam bëre bëre bëre ba bàyyi bëre sama papa jël ko ci moom kon tamit dama su ma bëree dama war a bëre su ma bëriwul dama war a bëre doomu mbër yaa ngir bëre moom loolu moom yàgg ñëpp yàgg nañ kaa dégg kon su ma nekkee doomu mbër bëre bëre daf ma war quoi waaw te làmb ji dama cee am cër. comme ni nga ko waxee ne làmb da cee am cër comme ni nga ko gisee yaa xam naa nekk mbër yombul nga nekk ci koñ nekk jeune. Euh, mun naa ne boo nekkee xale nekk mbër ku nekk ku la gis la noo kii xam ma bëggul lu baax affaire yooyu noonu nak nga ko dundee woon avant ngay dugg ci làmb ba nit ba ba commencé am tour nit ñi commencé laa xam. sant yàlla rek sant yàlla xam nga làmb moom metti na méttiwul mais boo dëkkee ci gox ñëpp bëggal la seen bopp defe naa ne góorgóorlu rek moo la war te dama dëkk ci dox gox boo xamante ne goxu Pikine la képp fépp képp ko xam si Sotiba xam si baa dafa bokk ci Pikine waaw may représenté waa Pikine kon gëm naa ne man tey su ma bëree dama war a bëri su ma bëriwul dama war a bëri ndax fii tey man bi may déggoo débuté ci làmb métti na métti na torop nag mais terewul man Baye Fall yi ma gis nii sama grand yi ngi nekk sama wet. di ko laata sa jaajaa tuuti ca Mbapat ni nga ak sa gars yi dem bëree ji. waaw mun naa ne sama Mbapat nag presque man dama teel a dugg ci làmb. man depuis eh, depuis ñaata ñaata at nga commencé dugg ci làmb. non comme bëri Mbapat rek. waaw bëri Mbapat man bi ma bi ma dalee jàng laa commencé dugg ci Mbapat sama grand yi nii. surtout kii moom ci laa njëkk a bëree ay keesu tàngal keesu biscuit yooyu noonu ci laa njëkk a bëree di dem di dem di dem su ma wàccee école tak damay du jubal entrainement écrit bi man maa fa gën a nekk xale suñu écrit ba léegi nii man gën a nekk xale bi ma nekk lu ndaw laa topp mbër topp mbër topp mbër ba mu sës nii gars yi koo ci wax da naan booy bi bu nekkul woon mbër rek man mooy loolu parce que dama yàgg a bëgg làmb nekk xale boo xamante ne nag bi may dugg ci làmb nag métti woon trop nag métti woon trop gisuma kenn waaye terewul man Baye Fall yi dañ maa jàpp bëggal ma seen bopp surtout waa Pikine dañ ma bëggal seen bopp ma débuté nag ci ci mbapat depuis ay 2014 laa débuté mbapat presque dugg doog a dugg ci làmb 2019 laa doog a dugg arène waaw bi ma duggee arène ba léegi nag yàlla moom may suturaal ma am ci 4 combats 5 combats ci combat bi ma génn nii 4 victoire benn défaite. benn défaite du kam daal. X9 moomu daan. mais X9 am na lu ma dégg naa daan na la mbapat daan euh, kii arène. waaw xam nga ma mbapat moom li ma wax rek presque jànguwaay la quoi gëm naa ne école la rek dañuy jàng rek kenn mënul mais université bi ci arène bi la nekk mais fee primaire la rek dañuy dem di jàng rek waaw dañuy dem jàng rek lu fa yàlla def tamit ñoo xam ne suñu wërsëg la parce que dañuy wuti buñ demee tamit dañuy dañuy làmbatu rek ñu dajee baax na bu buñ dajul tamit ñu ñëw nekkaat ci suñu entraînement nekkaat ci li ñu war a nekk x9 nag daan na ma mais terewul tamit xam na kuy booy ma doon mais yéen ñaar da ngeen a bëree arène non. bëri nañ arène mu mu daan ma mais terewul xam na koy booy ma doon. naka la ko xamee. xam na ko rek wasalaam voilà mun a yem. mais wax naka la ko xamee. na koy booy ma doon rek. parce que suñu jàmmaarloo yëpp day metti kon tamit xëy na juumte mooy ñëw mu may jaay expérience parce que moo ma mag xale bu ndaw laa moom moo mag waaw ni ma la ko sànq rek xale bu ndaw di ma ci tàngal di sawlal xaw ma dara. xale bu waxaatal lool ngeen xale bu ndaw. xale bu ndaw ma ci tàngal di sawlal waaw. alors bi ngi noonu nee na xale bu ndaw di maj tàngal di sawalal loolu la te a xay doo dégg aussi tamit ñu ñëw gis tamit à ah, sa gars yi comprendre nga ñu yaakaar ni nga nekk xale pikin gëm la tey boo paree ba takk ngem lu dul dara des lu dul arbitre ah, woo la nga sifflé boo tourné xool ah, ñi nga àndal lan ngay yëg. non c'est que Baye yi ci li ma war a ci li ma li ma mën a wax foofu ci lu gàtt mooy yar dafa baax ci doomu aadama. gars yi xëy na war naa leen loo xamante ne yëkkatiwuma ku nekk di jël xaalis di leen ko jox waaye dund naa ak ñoom loo xamante ne tey fu ma jugee Pikine topp ma tey loolu man maa ko dund ak mais loolu yëpp man dama gëm ni dama war a tekki ci làmb dama war a teral yaay teral. parce que gis nañ ko keroog stade ah, bu dëgg neexee da nga koo diw ba fees dell. li mooy li ma la wax rek yar ak bi moo indi loolu yëpp parce que Baye Fall yi man aw ma benn 1000 francs bu ma leen di jox li ma mën a def mooy ndam indi leen ndam ñu kontaan ci loolu. te depuis mbapat dañ maa topp bëggal ma seen bopp kon man Pikine dama cee am cër pikin dama cee am cër am cër boobu nag dafa waral tey man gën a fas joom tey parce que sama defet bi daf ma yee Baye Fall yi gën ma bëgg parce que da ngay daanu des fois gars yi bàyyi la ñuy beddeeku da dama dama daanu nag gën a gis samay nit aw ma ci noon aw ma ci xaj ak yow yaa daan daal barki alxuraanu karim dama daanu mel ni maa daan Pikine ñëpp gën maa bëgg moo tax ma xam ni instant nii liy jot jot na ba làmb dafa jot te li ci kanam rawul yi bët. aussi tam ñu gis à ah, Pikine ay champion dafay nekk ku ci mel ni ah, Eumeu Sène ah Boy Niang Ama Baldé yow nekk xale ah, tey ma ban preuve nga war a mën a joxe ba ñoom nga raw leen. non lépp rek dañuy santaat yàlla teg ko ci yoon rek suñuy grand lañ dañu di ñaanal jàmm rek waaw di ñaan yàlla def loo xamante ne tey dina ëpp seen njort quoi ci liñ njortoon ci làmb parce que ñun ay xale yu ndaw lañ xëy na tey ku ci dem bay def carrière tey dem nga tey ba toll ci benn âge bi di ko doog a def mais tey maa ngi ci bas âge tey kon ñaan naa yàlla tamit tey balaa sama âge di toll foofu tey ma am li ma war a am ci làmb waaw. ñu gis la keroog nga daan yaakaar naa combat spécial est-ce que mën nañoo xam Boy Maroon fan la teg bëtam. waaw Boy Maroon fu mu teg bëtam liggéey rek man ci liggéey la teg sama. entraînement daal. adversaire nga gis fixé ko nii tey jii buñ la joxoon avance tam nga jëkk ci ponkal yi parce que instant yi mën naa jàpp ne nekkatoo mbër mu ndaw parce que keroog li moo tax ma ne la ci entraînement rek laa teg man foofu ci ay mbër nii. non non man ci entraînement yi laa teg sama bët instant yi sama staff. mais mais tey faaw nga laaj mbër yi ponkal yi saa waay wala ñemewu ponkal yi su ma naree ragal kenn kay ma tekki sama ngéem moom. waaw mais da naan man diw laa soxla te diw war naa mën a bëreek moom doomu séeréer ala ca dar la xam ne du mos xam ne tey jii war nga soxla nga war nga seen a taxaw nga bëre ak moom. boobu parce que mag ñi boo leen tàllul loxo mooy loolu de. waaw dëgg sama staff laa ciy bàyyi ñuy waxtaan rek man déggalu la wax xale bu ndaw laa xaw ma dara sama staff ku ñu ma ne bëree la bu ñu ma ne woon suba suba da ngay jël yaawu jaal tey ñëw bokk Pikine de damay bëre moom. loolu man moom du ma ko nangu pourquoi ngay jël. voilà moo tax ma ne la nag lépp ci sama staff lañ. loolu tax kay ma ne kon tey jii danga nga war a xool benn champion boo xam ne teg nga ko pour mën a bëre ak moom booy moroon wala. am naa yoonu làmb ñoom xam nañ sama yoonu làmb même amateur yi keroog gis nañ ni mu demee kon xam nañ sama yoonu làmb. promoteur ñu ngi lay woo pour proposer le combat. waaw ñu ngi may proposer ay combat mel ni kan yi ku ci mel ni Daouda Sandwich ñu ngi doon wax mais sotteegul ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci suuf daal mais problème adversaire nag ci laa gën a am instant nii nii nii booy nañ jël booy moroon lu ñuy daw. ma c'est dañoo gis yow prix dib kan nga daan gars yi kay moo est nekkul loo tax gars di daw. loolu entraînement moo koy may ak liggéey bu wóor nekk ak sama coach Gana Seras maa ngi koy nuyu au passage mu may teg lu ma koy nangu kon tamit loolu tamit mooy feeñ ci stade ba rek. kan paa bi. waaw li ngay li ngay liggéey rek wala li ngay jàng rek moom ngay tari li may liggéey rek moom laay tari moo tax ma koy def vite fait c'est bien fait. non Baye dafa neex quoi nee na moom dangay def vite fait bien fait mais aussi man tey dama bëggoon tey jii comme xale nga. nekk jéem a teg sa bët fenn na man diw soxla naa ko bu ñu ma ko joxee ma daan ko ci ponkal yi. xam nga saa yi man ñu ma jox du nekkul sa nekkuñu samay adversaire sama làmb nekku nekk bëreeguma defaguma dara ci làmb ñu ma war a jox joxaguñ ma leen man sama sama bët fi ma ko teg instant ci kaw la. fan nga teg sa bët. fi ñuy ñuy teg ñoom kii ñoom Modou Lo man ci ñoom Modou Lo laa teg samay bët instant nii. kon tey fu ma la déggee say wax bu la àndoon avance Modou Lo nga jël ko. barki ça avance Mor Lo nga laaj. barki Serigne Touba Mbacke débiteur yi laay réeré. non saa taxawal est nekkul gars yi ñoo taxaw fii nga naan bu buñ la joxee Mor Lo mais tey yow avance Mor nga ne la ko joxee da ngay fanaanoo. xale xale du jéem xale day jàpp ni mën naa lii te lépp loo jàpp ni mën naa ko nekk xale yàlla day ànd ak yow ci loolu. kon boo nee boo boo nee tey mënoo jàpp kon kon tey bu avance Balla tey mu duggee tamit noonu nga fay jëlee ah yow yaa wax amoo looy ragal. luñ ma ëppale. ah yow laa xay laaj yow mi yow dañ ma ëppale bu dee nit ëppale wuñu ma ay nit mooy lañ ma mën a ëpp waaye ku ci taxaw man tey ci làmb tey ñoo xam ne kii mooy mbër mi kon lu ñu ma ëppale ci làmb tur bi la rek mais tey kuñ ci kuñ ci sumee ku loon contact tey barki alxuraan ko dem suba suba ma bëri grand combat. waaw li ngay wax. billaay walaay taala. alors mi ngi noonu kooku mooy booy mu doon yaakaar naa ni champion la tamit ah, keroog gis ngeen ko lu mu bëree comme yaakaar naa ni wax na dëgg nekk xale bu ndaw nekk dëkk Pikine yaakaar naa ni jàppale tamit day baax ci moom. duñ defee lu dul laaj ko loolu même est-ce que mën nañoo xam booy bëree autorité yi nekk fii Pikine est nañ jàpp tey komba waaw dañ ciy jàpp nag mais tamit ak luñ ciy jàpp jàpp des na parce que ci li may njëkk wax ci sa gox. ci sama gox laay njëkkee dañ gën a jàpp gën maa jàppale donte ñu ngi may jàppale nag mais dañoo am champion. parce que tey mun naa ne tey ñu bëri tey buñ sañoon tey am ku mel ni man te amuñu ko kon bu ñu amee xale bu ndaw boo xamante tamit gëmul leneen lu dul làmb. man soo ma fekkee ma toog nii doone kii sax mooy loolu dund ma ay affaire yu caaxaan man làmb laa xam entraînement. gis nañ ko que buñ duggee ci koom gis nañ ngay foo xam nga yaa kon yaakaar naa ne xale bi ngay wax tamit mi ngi ci yow kon yow mi tamit yaakaar naa ne képp ku la jàppale rek ko munum du ne yow la dimbali mais képp kuy jeune la dimbali surtout fii sa koñ fi nga dëkkee. déggoo ñu naan mbëru xale yi xanaa. yaay mbëru xale yi. ni ma la ko wax sànq rek xale bu ndaw ma ci tàngal sawlal maay mbëru xale yi. déere ko yaay mburu xale yi mi ngi noonu euh, est-ce que mën nañoo tey ñu bàyyi la nga wax maam ñu la doon dimbale ci combat ak ñu doon jàpp ci combat bi nga sant leen. waaw mooy ci li la wax sànq rek mooy autorités yi nañ ñu gën a jàppale parce que tamit saa ñu amee bés ñu dañ ciy sonn depuis bi ñu nekkee xale surtout tamit di woowaat mbëru mag yu Pikine yi mbëru mag yi nañ ñu gën a jàppale dañ leen ba ñu yéeg kon tamit dañ ñu jàppale ku ci amati combat même boo mënul ñëw nga yëkkati sa téléphone woo loolu geste bu naaj la man mu naa ne bi ma duggee ci làmb ba léegi benn mbër bu mag mooy ñëw ci sama làmb di ma jàppale. parce que loolu defal lu baax faa nga wax ko. muy soog soog kooku amu fayam kooku yàlla da fay xolam barki bàyyi atee mbaake parce que dafa dafa gëm pikin moom xoolul kii xale la wala kii mag la moom boo nekkee déret boo nekkee déret bi déretu pikin rek lay ñëw di di la jàppale ci loolu kon kooku man aw ma fayam te yàlla da koy fay xolam parce que tamit grand bu baax la di wax tamit gars nañ ko ñëw jël waaw parce que dafa nekk ci yoonu làmb alors waaw yaakaar naa ne li ñu amoon te ay temps jeex na duñ defee lu joxoo mu tàggatoog mbokk internet Dakar ne di koy seetaan euh, booy mënoon lay tàggatoog ak gars yi. waaw balaa may tàggatoo nag peut-être di ngeen ma ma sant parce que combat bi nii ma jógee dañ ma cee jàppale bu baax dama cee am taxawaay bu wér waa Pikine dañoo génn ñëpp a génn sotle ma kon tamit yoon la tey man ma sant ñi nga xam ne ñoom ma jàppale ci combat bi ku ci mel ni Assane Thiam Assane Thiam dafa jàpp ci combat bi bu baax a baax Issa Issa moto Issa jàpp na ci combat bu baax a baax Pape Mbacke Pape Mbacke maa koy ziaraat bu baax a baax moom tamit day jàppale booy moto day sonn ci man Sophie ñoom bili waa waa transfert Assane Assane maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit au passage moom tamit jàpp na ci combat bu baax a baax a baax a baax di ziar képp koo xam ne jàppale na booy moto rek ak waa Seras Seras bi mujj presque foo samay mag ñëpp foofu la ñuy liggéey man presque falaa nekk mun naa ne fa laa nekk Seras. Mass Ndour ku ci mel ni Mass Ndour sama mag Dieng ñing Mamadou Sarr gànna ñoom ñëpp Mamadou Njool ak sama papa Ablaye Thiaw ñoom dañuy sonn ci man Père Zora Père Zora tamit jàpp na ci combat bu baax a baax waaw ak ñi nga xam ne tamit cité wu leen quoi mënu maa ñëpp xel day fatu des fois mais képp koo xam ne jàpp na ci combat bi rek booy ma doon mu ngi lay nuyu Ablaye Ablaye Boulangerie jàpp na ci combat bu baax a baax a baax bilaay su ma limee rek damay jum waaw waa Cité Sotiba tamit aw ma seen fay. gox bi ma dëkk barki Baye Atex Mbacké aw ma seen fay waaw surtout sama boy yi nag ñi nga xam ne ñoom laa foowandool aw ma seen fay su may génn fii nii ñëpp ay jooy muy maire yi muy ñëpp kon waa Cité Sotiba aw ma seen fay waaw waa Pikine nag Pikine moom mun naa ne sama Pikine la parce que instant ñëpp su may génn ñëpp ay génn waaw li ko jëlee nag waa sees ba boppu coor xar ya waa kaaku ñoom ñëpp dañuy jàpp ci combat bi billaay walaay daagu daan képp képp kuy bëgg Boy Maroon nag Boy Maroon mu ngi lay bëggewaat waaw ginnaaw loolu nag ci émission bi ci li ma waroon njëkkee njëkkee wu ma ko mooy sama papa père Manick papa Manick kooku daf ma doon ñaanal moo nekkoon bilaalu jàkka ji jàkka si sosoti ba ma doon ñaanal bu baax a baax Samba saar Samba Sarr daf ma doon jàppale ci sama combat daf ma doon jàppale bu baax a baax di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm waaw paasi la Basile daf ma doon ñaanal moom tamit billaay su may wax ci ñoom sax sama xol day tooy parce que dañ ma doon ñaanal bu baax a baax waaw ak papaay ala nii waaw papaay ala jën daf ma doon jàppale di ma ñaanal tamit tey xëy na xëy na dëddu na tamit wet tey lii nekkul woon njortam parce que lii xamoon na ko da doon ñaan chaque jour waaw Pa Ibrahima Diène waaw di ziaraat ñëpp nag képp kuy bëgg booy moroon booy moroon mu ngi lay ziar di ziar sama grand bi ala kii day sonn ci samay mbir billaay walaay kabila àlla sama boy ni mafia bi ñoom Bale Ndiaye ñoom ma jóg su ma limee rek damay juum ñoom dawul gaa yëpp dañuy sonn samay combat billaay walaay bookar mee moom moo yor moo yor togg bi te du ma ci laaj dërëm barki Serigne Touba Mbacke kon xam nga loolu rek dafa neex waaw cité bi nag di leen waxaat ñu gën a jàpp rek te xam ne yoonu ndaw moo neexul waaw du gaaw nag des fois day gàtt des fois day gudd waaye métit métit bi tamit nañ jàpp te ñaan rek ñaan moo ci ëpp solo di ziaraat ñëpp nag di gërëmaat ñëpp surtout waa écurie Gana Seras sama mag Ibou Senghor kooku tey moom ma tette tey ba lépp lu ma am ci làmb tey mun naa ne tey ci ginnaawam laa ko amee ñoom Ngor Sogas ñoom Ousmane Fall Ousmane Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen ziar sama yaay awma fayam day ñaan guddi ak bëccëg waa inspection bi yëpp ak Ousmane Sow ki nga xam ne presque moom héberge néegam Baye Fall waa Galem yëpp maa ngi leen ziar Père Ousmane Sow Père Diop Tanwa Diagne Tanwa Khady Sow Badiane ñoom ñëpp awma seen fay su ma limee rek damay juum maa ngi waa cité bi yëpp nag di leen wax ne tamit ñu gën a jàppale Boy Maroon parce que booy Maroon champion la boo xamante ne tey mun naa ne fi mu toll ci làmb tey puus ko dafa gën a yomb nga koy xañ leneen kon nañ ma puus waaw waa Pikine ñëpp di leen ziar nag wasalaam. jërëjëf mbokk internet Dakarnet tey yaakaar naa ne dama doon am plaisir aussi di dalal sama frère nekk champion Pikine mi ngi noonu di wax comme ni mu ko waxee rek xale la gëm làmb. kon yaakaar naa ni ñëpp rek dañ cee war a mun a jàppale képp koo xam ne rek autorité nga nekk fii nii Pikine da war a jàppale booy bi di leen jox di daje ak beneen champion incha allah.